tey dañoo ñëw fii ci ñaari mbir bi ci njëkk mooy dañ fee indi benn appui boo xam ne dafa jëm ci askan waa Touba di association bi ñuy wax Touba jëf jël sëñ Fallou Mbacke mi nga xam ne tey moo tax ñu ñëw fii ak euh, directeur Senelec Pape Demba bi tey bi ma ko waxee ni ko Touba Belel dañuy tabax benn mbaar boo xam ne sëñ Sidi Abdoulaye moo joxe ndikal dana ma kat loolu danaa ci participer juróomi tonni ciment ndax sëñ Fallou dama bëgg a leer askan wi du politicien bëggut a dox doon dara ci politique. daway doon noo xam ni sërëb Sëriñ Touba la yoro liggéeyal maam suñ tubaa ci dëkk bi te Touba bale ku ko xam ne ci Touba bokk sëñ Abdou Lahad fi la ko boole woon kon sëñ Fallou looloo tax mu participer ci. mbar mi ñi def ci tuba ba bëgg Sëñ blad fay ko di xartu président Macky Sall nak ak soxnam lepp lo xam di président war na kaa def ci gox goxaan yi te mënul ko te mënul egg fep mu jëm ci lam man kon Sëñ fallu mbak ñi ngay sant bu baax ci turu wa bele yep ndax li mu def ni lu am solo la courant bi te ma fi indi muy 1 km bo xamni bima bi dox yaaka na musulmi ismi Isma jum def na ci effort yi bare bare ma ciy dox a dox a dox yaakaar naa lu mat atum yàlla ma ciy dox ba mu ñëw fii tey te waa koñ bi ñoo ñëwoon ci man ni mënuñoo am courant ndax seen poto yi dañuy sori yaakaar naa am na ñu ko wax fii léegi. ba ma ko waxee sa Pape bi de dana ma kat courant bi président Macky Sall dama ko dénk waaye bi ma ko dénkee daf ma wax ne fépp foo xam ne ab Sénégal ngi fay yeewoo courant bi man maa fay yóbbu courant ak maa fay yóbbu courant pour ñooñu am ak leeraange. kon donc Pape Demba Bitèye ñu ngi koy sant di ko gërëm di xamal président Macky Sall tam loolu nga dénk Pape Demba Bitèye muy wàllu courant li nga bëgg pour Sénégal yëpp am courant mi ngi ci kon directeur Pape Demba Bitèye ñu ngi lay sant di la gërëm ci turu Touba Belel yëpp. Euh, doomu Touba Belel bu yàlla dogalee mu dem ba yàlla man koo may dara xelam nekk ci fi nga xamante ni mooy cosaanam. mu fas fee yéenee góorgóorlu ngir liggéeyal li nga xam te ne mooy aw askanam def naa loolu maanaam jàmbaar la waaye nag askan wi tamit xam deñu xam ni kon moom loolu tamit ab taxawaay bu rafet la bu am solo la mbir nag bu amee dafay am loo xam ni ñëpp mun ñoo boole nekk ci benn bërëb di jëfoon di jëf ku ci ne am na lu la yàlla may waaye ku ci ne tamit ñu nangul la la la yàlla may ki ne ci àll baak ki na ci kaw ak fu mu mën a doon. ñun cité Sondeel te loolu lépp yaa ko fi dindi yaa ñu indil courant bi indil ñu ndox mi suñu koñ sàcc yi dañ daan ñëw normalement mais léegi mayeetuñ kenn mu xuus parce que lépp leer na nañ ñi ngi lay ñaanal nag lépp loo somb ci belal gi yàlla na nga ko eggaleeg sa sago. loolu moo waral démarche bi ñu doon démarché ndax un jour dama toog fan yee am ku muy waxal ne ko dina fexe ba am mbaar mu ñuy tabax Touba Belel fexe ba participer ci jàppale leen ci ciment bi. loolu mo waral mu def démarche yi ndax politique day am partenariat loolu mo waral mu am partenaire am wax ak mom pour que partenaire bobu jappelé ko pour mu meuna ñew indi teranga ji mu indi fi courant bi tamit la même chose motax nit bu juddoo fenn yaro fa fa mu juddoo jox ko moyen yépp su demee su amee dara dafa war a dellu siwaat foofu wane fa ne fii fierté la pour mu dëkk ak ñoom Moussa nag loolu la def ak waa Touba Belel looloo tax ñun ñii di ànd ak moom tamit ñu naw ko si parce que nit bu bëggul ay mbokkam bëggul dëkkam comme ne bëgg naa la rek dalay nax Macky Sall li mu wax mooy lii la soxla Macky Sall soxla woon wax ju bari Macky Sall soxla woon ŋaayoo xuloo xiiroo soxlawu ko Macky Sall li mu bëgg mooy un travail de proximité li nak moy travail de proximité mo ngay nemmeeku ñi nga nekkal amal leen jariñ am leen fo leen fété je pense que le militantisme politique dafa am neneen nuñ ko wara a cerner ne ci biir gox bi défo réaliser wo défo dara né tay gox bobu di nga mën am la nga bëkk ko wërta mëna nekk donc ñun ñu nekk ci goxaan yi te di ko fi nekkal li Moussa def rek moy tax Macky Sall am ndam ëlëk ci biir